Lougaré TV télé bi xew si jamono ñoom ñooy Feeling Pack di jàppale seen talaay di leen dooleel ci yoon wi ndax yoon wi jekk ci yomb lool te metti lool mën naa ni yoon wi jekk ci neex lool te jafe lool Fatma Braan sama yaay yàlla maa ngir ku sumb da ngay tooy mama ayay booy sa doom maa yaay lu gaari saw daal di raw bépp tere loolu lay ñaan asalaamaaleykum euh, amis et internautes bu Lougaré TV euh, ñi ngi nuyu kenn ku ci nekk ci sa tour ak ci sa sant euh, di leen jaajëfal nag bu baax ci taamu bi nga xamante ni taamu ngeen ko la télévision bu Lougaré TV rawatina ngeen taamu ko seen émission bu Lougaré sew waaw tey nag seen émission Lougaré Sow dafay dalal ndaanaan di artist bu mag yor une voix particulière boo ko déggee rek da ngay xam ne kii ndaanaan la kookoy kan kooku mooy nday Mboup nday Mboup nag je pense que kenn dootu leen ko présenté ti parce que bokk na jamono ji ci jeune talent yi nga xamante ni ñoo dàq woy ci Sénégal macha allah nday Mboup nag ngeen euh, gën koo xam ci benn série bu naan série Dikon une euh, série boobu nag euh, saa bu daan tàmbali rek yéen a ngi ciy dégg benn woy bum ci daan woy tuddee ko dugg naa ci yow. taxawu ngeen gën ko xamaat également ci beneen série bu naan famille sénégalaise mu woy ci woy bu am solo moom moo ci woy naan karo euh, leen kër yi te bañ a karo li nga xamante ni mooy xol yi ak jikko yi mu nekk vraiment chanson bu am sens bu neex euh, chanson boobu nag euh, vraiment nekk chanson boo xamante ni neex na ñi nga xamante ni moom mooy sénégalais yi trop trop trop macha allah kooku nag tey moo ñu dalal fii ci këram Fass Mbao ñu fas yéene waxtaanee li nga xamante ni nag moom mooy euh, carrière mais également waxtaanee li nga xamante ni moo jëm ci wàllu showbiz bi nday Mboup ñu ngi lay nuyu. waa Yamar maa ngi lay fay bu baax. Mhm. di sant yàlla. di gërëm samay ñaari waajur. di wax ni nag ah émission bi tey du yomb de. di gërëm sama borom kër ak soppe yi nuyu naa ñëpp. jërëjëf oh. <laughs> waaw. di la tamit aussi fay. di la remercier tamit aussi ci euh, dalal bi nga xamante ni moom nga ñu euh, dalal euh, Ndeye Mboup question bi nga xamante ni moom lañ lay njëkk a laaj mooy que ne la majeure partie des sénégalais xam nañu la mais am na si nag ñu bari ñoo xamante ni peut-être xamuñu réellement kan mooy Ndeye Mboup lan nga mën a wax ak ñooñu pour que réellement ñu mën a xam kan mooy Ndeye Mboup. waa Ndeye Mboup Yamar mu ngi nekk taalibe Serigne Fallou. Mhm. nekk doomi géwél. Mhm. nekk xaleb géwél. Mhm. bëgg a way mhm. mën a way mhm. ba pare jàng ko nag ba tey mokkalaguma te bëgg a mokkal rek lii ma dal waaw di bëgg a bëggal fans yi ak soppe yi ndey mu ba ngi nii daal dëgg la nday la ba ngi nii euh, loolu am na solo mais bi nga dalee woy ak euh, léegi nag euh, yàgg na mais ci diggante bi boobaak léegi lan nga ñu mën a tegal sur la table luy wane ne tey ndey mbub moo def tey œuvre yi ak fan nga jaar waaw li tax ma naan la Ndeye Mboup moo def œuvre yi mooy. Mhm. fi ak fi ma jaar. Mhm. bi may jàng. Mhm. di jàng école. dama daan wayantu. bi may wayantu. maîtresse bi ni ma Ndeye Mboup yow est ce que xam nga ne waykat ngay doon. ma ne ko a ah, samay maam ay ndaanaan lañu de. kon su ma wayee rek war naa way. yàlla def. ma jaar. ci njaayum crème. jaay laaj. Mhm. waaye boobu yàlla neen day boobu mi woykat lay doon. dëgg la mënuma ci dara yamar yàllaa ko def moo tax damay way rek. <laughs> way rek laa xam. <laughs> dëgg la vraiment euh, la majeure partie des sénégalais. gën la xam ci benn woy woo xamante ni. woyoon nga ko ci benn série bu naan dikkoon. Euh, nga ñu xamaat la aussi ci beneen woy boo xamante ni Euh, ci famille sénégalaise nga ko woye muy moom it aussi beneen série buy daw ci télé bi muy karo euh, leen kër yi ta bañ a karo xol yi ak jikko yi voilà léegi donc donc dañuy njëkkee nag ci euh, dugg naa ci yow dugg naa ci yow loo ci mën a wax sénégalais waa dugg naa ci yow benn série la woon. Hmm. bu ñuy wax film dikoon. Hmm. Aline Ndiaye bëgg ko ko wayal. Hmm. léegi mu daal ni man daal waykat lay wër. Mm-hmm. léegi ku ñuy wax grand mbay sam maestro mu may jouer guitare. Mm-hmm. mu ne ko li dee ndeyu bu ñëwee dina la ko woyal. kuy Aline Ndiaye. tonton Aline Ndiaye moom moom Pikine production. dëgg la mooy def théâtre yi ak film yi. Mm-hmm. léegi nag bi mu ñëwee. yàlla def ma way ko nag ah Sénégal yëpp d'accord. waaw mu marqué Sénégal waaw koy sant yàlla bu wér. waaw sant naa ko yàlla bu wér wér. dëgg la dëgg la son ñëw rek vraiment. cartonné euh, cartonné. sénégalais yi bëgg ko lool macha allah. Euh, donc nag euh, tey euh, bëgg nañ xam ñoom sénégalais yi lan moo la nan nga mën a jàngatee loolu nga xamante ni bi son bi génnee sénégalais yëpp bëgg nañ ko donc lan la def ci yow quoi. waaw loolu dama koy sant yàlla hmm. te xam ni liggéey rek moo wóor hmm. liggéey moo wóor hmm. lépp looy def yamar soo ko mënul bàyyil. baa xam nga loolu. waaw loolu moom dëgg la te fii jàmbaar amut ku ñu dimbali rek moo am. dëgg la te nag way dafa nekk sama deret de. Mm-hmm. yu ko faali yaa si sama maam moo way ba ñu may ko góor ba ci ñi ngeen ndax ay way. Mm-hmm. kon loo ma tegal rek man ci kàttanu yàlla war naa ko mën a way dama koy sant yàlla bu wér. waaw loolu rek laay yàlla moom la gis xam ne ndaanaan nga te boo wooyee ñëpp kontaan waaye nag sénégalais yi woon nan ma ci yow de nee nan nga nuyoo leen ak dugg naa ci yow bi rek ah, waaw bu defee xol yi gën a féex ba dugg kaso faaw oh, oh, oh, oh. di ca moom boppam kenn xamul jabaram dugg naa ci yow ba dugg kaso faaw oh di ca moom boppam kenn xamul jabaram yaa may ub yaa may ubbe delloo buntu àdduna gàddu caabi àjjana dugg naa ci yow man dugg naa ba dugg kaso fa ohoho picc moom boppam kenn xamul jabara waaw morso baa noonu ku ko dégg mu way nga xam ne ndaanan la ku nga xam ne doomu géwal mooy way waaye ku ko dégg muy way nga xam ne kii vraiment ndaanan la ndax euh, woy bi moom euh, je pense que ne ci xool la jógee te tamit aussi ci xool lay dellu vraiment dugg na ci biir xool yi waaw kon ñi nga xamante ni tey ñoo doon euh, ñaan dédicace boobu muy dugg naa ci yow yaakaar naa kontaan ngeen yéen ami internet bu Lougaré TV ak yéen sénégalais yi ñu xamaat la aussi ci beneen woy aussi boo xamante ni yaa ngi ko woy ci beneen série tamit muy famille sénégalaise Euh, mooy woy bi ngay woy naan karo euh, leen euh, kër yi te baña a karo xol yi ak jikko yi mu nekk son bu am tamit sens vraiment di jàngale loo mën a wax sénégalais yi ci woy boobu karo leen kër bu kenn karo xol yee ak jikko famille sénégalaise lañu wax suñuy valeur lañuy kañee waaw nañu karo kër yee te bañ a karo xol yi yamar fay sama waa ji bur yàlla moom xol lay fay ah, bu yàlla ne waaw nga di déet déetéel lay déeteel bu yàlla ne déet nga ni waaw waawoo lay waar bopp bor ta toj ko du yombu jaam yàlla bur bi mooy bët jaamam fu ko neex lay xoole waaw waaw damay géwél di way war a way yàlla def ma may bégalee baba njimi birandam mama yaasin em mbadan yugo fal yaasin salata ko xaajaan bi de salak de yoor may sama maam géwél buñ ko ah, may sama maam ngariis ah damel li may sama maam gorba ci ñi ngeen ndax ay waay ma doonu ndaat naani wowoo adamay sama yaay njukki la dëkk alxari ngoone jog maay la déggal xari ngoone jog yéego faal yaa si ma kurak la taalak maa joor maalikum ba saalam baay maalik te njaay si ma ma salaaj bi ndiggéewul ànd ndoo maa wara eh, maa doon <laughs> doon ndaanaan yi maa doon ndaanaan yi yow moom gëm naa ne boole nan la ci ndaanaan yi yu gën a mag yi sax macha allah kon kooku mooy nday Mboup dégg ngeen way vraiment woy ko ci lu jëm ci wàllu son bi nga xamante ni moo lëmbe woon jamono ji lool euh, muy euh, dugg naa ci yow waaye tamit aussi euh, beneen son bi nga xamante ni tamit aussi moom it sénégalais yu bëgg nañ ko lool muy Caroline kër yi te bañ a ah. karo li nga xamante ni mooy xol yi ak jiko yi mu nekk vraiment ñaari son yoo xamante ni euh, vraiment marqué na jamono ji lool waaye tamit aussi sénégalais yi bëgg nañ ko lool kon kooku mooy nday Mboup vraiment euh, woy neex na et puis voix bi tamit aussi c'est une voix particulière maa ngi koy wax tamit aussi ci introduction bi ndax boo woyee rek ñu xam ne kii ndaanaan la te boo yuuxoo rek ñu xam ne euh, Ndeye Mboup mooy woy te loolu dafa am solo trop ci woy te mi ngi ci yow. mais Ndeye Mboup euh, bi nga dalee woy ak léegi euh, j'espère que am na ay single yoo jot a def. waaw am na single yu ma jot a def. parce que maa ngi dugg ci aar bi 2014. 2015 ma duggee 2014 2015 di way ci laabaan yi simb yi ak mbapat yi ak ngeen tey ceet yi après nag ci laa duggee ci musique bi 2015 2016 ma def single. waaw ah, loolu am def àndaw njaay nit ku baax. Demba Samb Malick Ndiaye sama waa ji ma nga Pikine diggéen Gunaas. moo ma njëkk a may un million. ah bon barke Serigne Fallou. ah kooku baax Assou Ndiaye sama géer gaa ma boole woon moom. Séeri Assou Ndiaye yal na yàlla fal leen ceet gu barkeel. ci defee nag ànd ak bi commencé nag di def single nag. yan bi ma defee nit ku baax ki. Mm-hmm. way ci àndaw. Mm-hmm. affaire bi cartonné. Mm-hmm. ma defaat single def ko may batale way ci sama jëkkër ju baax ji ma dooleel. may ma fit baayu Khadija ak yaay Nene ah yaat fay yaat fay mu baax mi doon daanaan jàppale ma naaru aw fay mu ma sagal bi ma defee loolu ba pare mhm. après nag ci laa def nag single boo xam ni mhm. moo bi tëjee maa doon daanaan ni yaa doon daanaan ni waaw ñu ngi koy suivre mu nekk moom it single bu neex laa def dëgg la waaw kon kooku mooy Ndeye Mboup euh, yaakaar naa wax na leen fi nga xamante ni moom la jaar ci wàllu euh, single yi euh, ban single nga ci njëkk def mooy nit ku baax loo ci wax nit ku baax maa ngi naan aka mën lu baax te di ko def andaw njaay andaw mu seera faal kii daal garmi laa demba samba malik njaay andaw njaay asu ñing mooy sa andaw garmi laa waaw def ko may battaleel boo demee weet ko may battaleel ko ana bàyyi Khadija koomay baatale. waaw waaw <laughs> mooy yaat fay xanaa moom da doon voyage yi. moo tax nga créé loolu. way bi dama ko way. Mhm. chéri Madior ak Dior. ba tey production ñoo ko produire. Dior di ci marié di sëy ji. Dior Diop ma naan ko Dior Diop koomay bataleel. boo sëyee dinaa wét koomay bataleel. xam nga way boobu cartonné woon na ci Pikine production Sen TV may gërëm Aline Ndiaye bu baax mm-hmm. léegi bi ma ko ci waye xale yi nag def ko ci TikTok bi kuy sëy wala ñu lay takk ñu def ko ci TikTok bi mm-hmm. après ñu ne ma lan moo tax mënoo ko def single ci laa ko defee single way ko sama jëkkër waaw dëgg neexut waaw ma inspiré wu ko ci yaat nag daal di ko bay tagg ko ci mm-hmm. wax ko lu baax waaw loolu am na solo nga tegaat ci ban après nag ci laa def gelwaar gelawaar bi mooy maa doon gelawaar boobooy sama son nag boo koy woy vraiment damay sentir ne lii son ndaanaan la man yooyu laay wër loo wax ci loo wax ci gelawaar bi boobu maa ngi ci woy sama géer ajaratu Yacine Doucouré yaayu Xaadim Diagne ak Ndey Daba boobu maa ngi ko ci woy maa ngi naan ko maa boobu maa ngi naan ñi ngeen yëngu leen maa ngi woyal sama géer a Yacine Doucouré waaw waaw kor jeer ja ngay maamam saala bi ke ngone yugo fal yasin waynde waynde waynde tudu waynde ku weddi de kot jeng manan bakal ma gelwaar ma ma way ko gelwaar jugaamu gelwaar waaw waaw ma way ko gelwaar ma way ko gelwaar ma gay bakal ma gelwaar ajaratu yaasundu kuré ma way ko gelwaar koor joor te ngay maamam yaay xaadim jaan ajaratu yaasundu kuré aka doyloo seex na seex saat bu xayrtu yaayu ndey daba damala yoo mbokkum yaayum daba du kuré maa wak faa ana mag musu caat musu sama waay la woo woo woo maa ngi wayal yaasundu kuré daal ni jali ma woo boo dëkkul ñi ngeen mbaa nga dëkk jukki sama kër maam doo ko way lii wayu la aminu yaa ngoy fela aminu yaa ngoy aminu yaa ngoy hey maa doxe hey jali jal yu ma wooy oh, oh. boo dëkkul ñi ngeen mbaa nga dëkk jukki sama kër maam doo ko way lii wayu géwél ma doonu kinne man waayal doonu daba sey man doonu kumba gawlo doonu ami kole doonu mari gawlo doonu mati cam man doonu ndaanaani hey ma doxe doxe naa bajali yamar fay uy ma uh, oh, oh. hey hey hey hey xam nga ma doon kin la xam nga loolu maa ngi ko loolu loolu dafa fees. waaw li yi naan loolu dafa fees. loolu vraiment ku ko dégg xam ne son daanaan euh, la. vraiment mais euh, Ndeye Mboup yow bu la déggee ngay woy. Euh, dafay mel ne Daba Sey mooy woy loo bokk ak Daba Sey. waa deret nag dafa foor. Mhm. Daba ñoo bokk benn papa bu ñu jur. ah bon benn papa ah oui ça se voit la mën a demee waay ah la mën a demee bu wooyee rek nga xam ne daba see way macha allah da ngeen a da ngeen a da ngeen a ndro ndro ndro lépp macha allah très dafa fort euh, mais alors euh, Ndeye Mboup waaw euh, que sax yaa ngi toog sa xel di dem ci album waaw bu baax baax ah. maa ngi liggéey loo xam ne incha allah mm-hmm. bu neexee yàlla xam nga dama nekkoon en état dëgg la muy profité di ko wax fan si gelwaar bi laa leen mujjee may te defe naa octobre novembre la génnoon. Mhm. novembre la war a am. Mhm. un an incha allah. kon ma def naa lu bees. mais fu mu ne nii bu neexee yàlla. Mhm. maa ngi waaj du rëy. Ah loo xam ne bu attaqué album lay doon. jeex na. kon fan si xaar leen ah, li nga xamante ni moom mooy albumu Ndeye Mboup. albumu Ndeye Mboup moom j'espère que bu ñëwee moom vraiment di ngeen kontaan. ndax euh, vraiment single yi neex na. waaye tamit yenn prestation yi nga xamante ni def na ko ci télévision yi vraiment am na solo ba nga xamante ni bu album bi ñëwee moom a ah, loolu moom yàlla na ma fi fekk rek. incha allah quoi boobaa moom vraiment euh, Sénégal dafay wàcc ba zéro euh, macha allah. Euh, mais sa diggante ak euh, ñi nga xamante ni moom mooy euh, artistes yi loo ci wax. man nag artistes yëpp samay xarit lañ xam nga maa seen jaat ku judd 90 xam nga ni mooy jaatu artistes yi kon maa ngi leen bëgg bu baax parce que man daanaan yëpp laay déglu daanaan yëpp laay déglu ma ëpp lu may déglu nag parce que dëgg la yàlla bëgg muy Assane Ndiaye Thione Seck Père Ousane Ndongolo ci la ëpp lu may inspiré ci ñoom. mais nag ndaanaan yëpp laay déglu. ku ba gawlo daf may daaneel. dafa mën a way barke Serigne Fall dafa mën a way. Aïda Samb daf may daaneel. Mhm. titi. Mhm. mati caam dogoo. Mhm. ki ne laam. man ndaanaan yëpp laa bëgg. parce que nag sama nopp yi maa ci déglu bon. ku way neex ma déglu loolu moom xam naa ko. am na solo kenn du ma way ci kenn du ma nax ci way. am na solo waaw di ko sant yàlla mais artistes yëpp samay xarit lañ. jaajëf waaw ñu góor ñeeg ñu jigéen ñi. ñu mag ñeeg ñu ndaw ñi. am naa ci ay rakk. ñëpp lay bëggee. dëgg waaw. dëgg la Ndeye Mboup loolu am na solo euh, yaakaar naa ne daan naa ne lay dégg euh, te vraiment xam naa ne fi ñu toog moom euh, ñoom ci seen bopp xam nañ ne yow ndaanaan nga waaw parce que sa woy moom ndaanaan rek a mën a xam ne ay woyu ndaanaan la mais Ndeye Mboup je pense que ne da nga choisir comme nekk artiste te artiste bu boo nekkee tey ak métier bu mënti doon tey nga ne man lii laa choisir moo xam tey ki nga xamante ni moom caméraman la ni man caméraman la choisir xëy na dina ci am ay projet dina ci am ambition ne bu ma demee ba am xaalis lii laa bëgg a def boo nekkee tey peut-être tey euh, technicien di nga ne ah man de sama métier technicien bii de bëgg naa ci dem ba am ci lii def ci lii donc yow en tant que artiste tey nga liggéey liggéey liggéey tey ba dem ba am foo toll allah ñu naan nday mi nday mbu mi ou bien milliardaire lan nga lan nga bëgg est-ce que yaa ngi toog di euh, xalaat ne man lii dinaa ko defal tey yi nga xamante ni moom mooy fan fii soit nga ubbi ay entreprise jeune di ci liggéey wala soit nga def dara loo xamante ni tey di nga mën a accompagner accompagner fans yi nga xamante ni ñoo leen topp ba tey ngeen egsi fii ah. waaw li nga wax am na solo. Mhm. parce que lépp loo yëngu rek ñaan nga yàlla. Mhm. doon ci lu rëy ëllëg. Mhm. doon ci référence a royukaay comme papa Youssou Ndour mm. ñu ci nekkee suñu référence comprendre nga ba waali ñëw prouver ak sama mag yi ak sama yaay yi mm-hmm. comprendre mm-hmm. loolu maa ngi koy parce que aar bu dee dëgg rek la yàlla bëgg mm-hmm. macha allah teral na ma te bu yàlla dollee ma jël fi yàlla rek moo fi ne yamar ta yàlla rek mu jëre woon am na solo comprendre nga parce que aar bi ci laa amee lu ma neex waaye ci laa amee lu ma naqari mais li ma ci naqari dama koy jël def ko ci li ma neex mu doon bànneex. jeex na. aar teral na ma. Mhm. macha allah. Mhm. tax na ñu naan Ndeye Mboup. mais du tax ma réew du tax ma beewu. parce que yàlla moo ne Ndeye Mboup artiste say doon. Mhm. aar tax na may dawal ci oto yi. dëgg la. te maa ko ñaqale sama bopp kenn du ne maa may Ndeye Mboup oto. la dama koy sant yàlla. dëgg la dama koy sant yàlla. aar tax na may takk ci oor yi. maa ngi koy sant yàlla. aar tax na may sol ci yére yu rafet yi. macha allah. loolu maa ngi koy sant yàlla bu baax te bu doolee ma jël. oui it dafa commencé gom ni rek di léemu. dëgg la bu jële ma jël mais ñaan naa yàlla. Mhm. doon ci lu rëy. dëgg la toll ci fu ndaanaa toll. dëgg la comprendre nga. dëgg la. ba ma ubbi ci ay entreprise di ci jàppale samay rak mhm. samay doom mhm. samay fans club ak samay famille dëgg la dëgg la loolu laay ñaan yàlla dëgg la dëgg la waaw jërëjëf loolu am na solo euh, kon euh, yéen ñi nga xamante ni peut-être yéen a ngi suivre ki nga xamante mooy Ndeye Mboup mu nekk seen fans yaakaar naa rassuré na leen dalal na seen xel te képp koo xamante ni yaa ngi topp ci ginnaawam rek mu nekk sa sa waykat Euh, dégg ngeen ko li mu wax kon ñaanal leen ko rek yàlla guddal fanam gën a wéral baat bi ba tey bu demee ba réaliser li nga xamant mooy rêvam yaakaar naa di ngeen si gis seen bopp bu baax yéen fans yi euh, mais ndey boobu ci sa biir wax sànq yaa ngi naan aar euh, am am nga ci bànneex am ci naqar Euh, tey bien vrai que ne li nga lim nii bànneex la oto yi rafet yi kër yi rafet yi sañ-sañ macha allah euh, mais est am nga yeneen xeetu bànneex yoo xamante ni tey mën nga ne ko ci wax. bànneex wala naqar. bànneex bi laay njëkke mm-hmm. parce que looy dugg rek. Mm-hmm. balaa neex day metti dëgg la. parce que liggéey. Mm-hmm. way doon xale. dafa góor lu dul ñaari single. jàpp ñett. maa ngi sant yàlla bu wér yàlla doon ay album yi album. dëgg la. nga liggéey ci ba ba wàññi. Mhm. jënd oto. dëgg la ndam la ndam la c'est maa ngi ci sant yàlla bu wér. doolee ma jël c'est di am ci loo teral sa waajur ndam la. ndam la maa ngi ci sant yàlla bu wér. Mhm. sama jëkkër dooleel ma nag yàqul sama xaalis. Mhm. te fitnaa lu ma. bi may doxaan. dañu ma loo am defal ci sa bopp lu ma bokk ak yow. dëgg la. góor gu baax ma wax loolu. oui góor gu baax te ndaanaan la pire. ndaanaan la soo ko waxee dégg say maam tata. waaw loolu moom dëgg la. fay rek. non dañ fiy jaaraat dañ fiy jaaraat. kon xam nga ni ndaanaan dañ fiy jaaraat. ma sant yàlla loolu. naqar bi ma ci am. Mm-hmm. du naqar bu garaaw sax parce que damaa yokk jom. Mm-hmm. comprendre nga. Mm-hmm. parce que artiste bu mag yóbbu na ma ci studio. li ma wax leer na faa géwél. bàyyi ma ci studio huit heures. huit heures timis. ba trois heures du matin. studio Papis mm-hmm. bàyyi ma foofu mm-hmm. ni ma maa ngi ñëw li mm-hmm. may wax Papis bu dee di ko seetaan li may wax ak am dëgg bàyyi ma fa trois heures du matin man ak sama mag faa géwél aw ma lu ma paase boobu metti na lool mettoon na maa ngi wayantu boobu sax way bi des na dëgg la ba tey sax des na mais maa ngi bu wér di jàng ba tey bi ma bàyyee foofu sama mag bi ma lay wax faa géwél ki ma naan la mu ma solal moo mm-hmm. jaay ay jaaroom benn tubaab bu ñëwoon ci studio bi mu ne ko tub jaaro yi dafa ma neex. Mm-hmm. mu wanteer ko ko 1500. Mm-hmm. ñu mën cee paas taxi. ñibbi Grand Yoff. ndeysaan di nuyu Assane Gaye ndaanaan lu mag loolu. jour boobu ñu ngi ko fekk ci studio bi muy instre dëgg la nañu du leen bàyyi. ngeen dem ngeen ñaari jigéen kase. dama leen yóbbu ba Grand Yoff parce que dafa danger. dëgg la artiste def na ma loolu ndaanaan bu mag. dëgg la. ma maa sant yàlla ki ma ko def jom la ma doon utal bonut mm-hmm. de dama doon utal jom mm-hmm. est-ce nga artiste woo na ma ci ni ma danga nga bëgg a tukki ma ne ko ah bëgg naa tukki di kenn bañu ko mm-hmm. mu ne ma am nga passeport ma ne ko am aw ma passeport mu ne ma damaa bëgg nga jox ma vingt cinq mille ma defaral la passeport parce que dama war a dem tourner Espagne yóbbaale la la est-ce may comprendre ma jox ko vingt cinq mille. Mhm. boobu maa ngi taqale vingt cinq mille yomb ma. ma ànd ak sama mag bi tamit faa géwél ba tey. Mhm. ci écran laay waxee. Mhm. mu jël vingt cinq ba sànq suba. dëgg la maa ngi sant yàlla. sant ah, <laughs> dama ko sant gërëm ko. dëgg la woykat boobu bu mag la nag. dëgg la mais sant naa ko. dëgg la dëgg la dëgg la. gërëm naa ko lool. dëgg la loolu c'est ah, important jom ma ut loo mais naqari na ma nag. mais après bi ma tolloo fii macha allah doon bu ndaw bi. ah nag xam naa ne yokk na ma jom xëy na dinaa mës doon bu mag. waaw di nga mës doon bu mag euh, c'est important loolu message la woon boo doon lancé rek. Euh, di wax ne woykat bu ndaw bu ko ci mës a dund rek euh, jàppal ne bis dina ñëw rek dina neex quoi. te jom nag moom moo koy maye ah, comme jom di nga am tey. ak mën a woy tamit am talent. tey sa talent man yàpp jàpp naa ne moo la may loolu yëpp. waaw talent bi moo la gën a may loolu. ak ñaan waajur dëgg la ndax dama teel a ñàkk papa. Mhm. waaye nag sama yaay la jërëjëf sant yàlla. merci beaucoup ah, di leen rappeler nag ba léegi yéen a ngi ci émission bu Lougaré Sow ci seen télévision bu Lougaré TV tey seen invité nekk ki nga xamante ni moom mooy euh, nday Mboup nday Mboup bu ñu jógee ci sa wàllu carrière ak euh, projet yeeg yëpp dañuy dugg tuuti ci benn question rek ci Showbiz ah. nga xamante ni euh, saa su ne rek Showbiz day jékki-jékki rek am benn actualité buy daw ah. tey. ku ci nekk xam na diggante ki nga xamante ni moom mooy euh, Ndeye Ndiaye Banaya ak ki nga xamante ni moom mooy euh, Sidi Diop euh, vraiment seen ànd bi rafetoon lool macha allah foo gis Sidi gis nday Ndiaye foo gis Ndeye Ndiaye gis siidi vraiment ñu dem ba seytaane tey dugg seen diggante loo mën a wax ci loolu maa ngi jégalu de. waaw xam naa man naa xalaat. <laughs> barke sëñ Fall nag non du loolu Ndeye Ndiaye sama rak la. dëgg la man ak magam Fatou Ndoye ñooy ànd. dëgg la Ndoya. dëgg la moom Ndeye Ndiaye bokk ndey ak baay. dëgg la c'est vrai. dañ may nduróo sax ak Fatou Ndoye. dëgg la Fatou Ndoye baa xam nga loolu. Fatou Ndoye waaw moom Ndeye Ndiaye bànn yaa ñu bokk ndey ak baay. même Ndeye Ndiaye sax xaw ngeen am tuuti. waaw comprendre nga. Ndeye Ndiaye sama rakk la mais barke sëñ Fallou yëguma ko mbaa xam nga ne duma xool lu bon waaye loolu man daal maa ngi xool mhm. li ma jëmale kanam mhm. ma gën a mën a way gën a am ci koppar gi te mu lew dong ma bëgg sama jëkkër rek man loolu laay dund de ah bu dee loolu am na yàlla leen yàlla jiboole ci barke Serigne Fallou ku nekk xam na nekkoon na ci groupe ba mais nekkatu fa léegi quoi ñu ngi ah, dem ba ko gis fa ñu ngi ko gis sax léegi muy dem ci ay soirée euh, Wally Seck ba Wally Seck sax jëndal na ko fan yi euh, oto bu rafet macha allah <laughs> Laati Diop dëggeen bàyyi nag dafa mën lu baax <laughs> ah si it mën lu baax waaye Wally Seck ah, ah mën na lu baax nag Maria Sine Mesa Bigué yàlla na yàlla laf cat waaye nday yaayit yal na ko yàlla fal cet ci di moom it. jaajëf waaw. Ah, euh, donc kon euh, yéen ñi nga xamante ni yéen ñuy seetaan ci seen télévision bu Lougaré TV si seen émission bu Lougaré Sow. Euh, kii moom moo nekkoon ki nga xamante ni moom mooy Ndeye Mboup Ndeye Mboup yaakaar na tey waxtaan bi neex na trop mais am na solo trop nday Mboup sa dernier moom waaw sama dernier moom mooy alhamdulilah. kontaan naa ci Lougaré TV. yàlla na yàlla defal leen jàmm. yàlla def xéewal seen télé bi doon télé bu mag mbaa xam nga lool te da koy doon ndax fi ngeen jaar macha allah ndey mbub seet bu fi mas a ñëw doon na télé yàlla na ko yàlla def ci barke Serigne Fallou sama yaakaar di kontaan ci di kontaan ci yow tamit Yamar fay mhm. bu baax parce que yow da nga doon ànd ak Ousmane sama doom. Ousmane Mbuub Ousmane Mbuub mag papaam ñu bokk benn baay. Oh, Ablaye Dieng sama mag ju baax jooju bëgg bëgg ma lool nag. Mhm. maa ngi koy nuyu bu baax. di ko ñaanal yàlla di ñaanal Ousmane fu mu tëdd yàlla na ko gënal fi mu jógee. amiin amiin amiin sama doom ju baax jooju yaru. bàjjen rek la ma daan wax. yàlla na ko yàlla yërëm. maa ngi koy jaale bu baax. Mhm. di la nuyu. Mhm. di kontaan ci yow ak caméraman yi. kontaan naa ci Louga TV. bég naa kontaan kontaan naa gërëm naa sama jëkkër samay goro mhm. samay njëkkee mhm. samay famille mhm. di leen wax ni nag am naa nenne na ma ñëpp ñaanal ma commencé waat ci liggéey bi yu bees tàq tàq tàq acoustique yu neex afrobeat ak traditionnel bul sonn <laughs> waaw Ndeye Mboup euh, xam naa sénégalais yi rek da nga leen di euh, vraiment euh, tëjalee rek benn woy bu neex vraiment ñu yóbbaale ko rek tëjee ko émission bi <laughs> bu ni xëccoo rus xam naa ku jël ngalam doo perte Louga TV xam naa ni man moom lay seetaan bu ñuy xëccoo ndabin ca baag ba laay njëkk daas bal ba waa Louga TV xam naa ni man yen lay seetaan yéet nay si bépp doole yéen a man li ngeen di def yaru lool doon bay fal bëgg maam seera faal may sa bigi kumba faal koor jépp baayu lala faal bu woon ak moom ah, ahmadu réer ñu teew a ahmadu borom jaam ñi moo ñu dimbali bàyyi sëriñ fallu mbakke sama yaakaar sama wasila ey man de bëgg naa yamal fay ah mbaa bu dem mbaa laatim ci loo fe far bay teeñ su ma neexee ni la fay biram pend waa gaan doogo doogo waa gaan xaarit waa gaan sama waaji lay woo ku bëgg falu gala seey maam falloo xadija maam da baaxe a ah, a ah, falu bemba man de dama la yoo sama doom nuyu naa leen. waaw. <laughs> waaye ma ci gën a neex nag mooy vraiment fayen bi nga tagg quoi. da nga may wan sant fay day maana. da may wan ne da nga maîtriser nag fayen. Ah, sama jëkkër fay la sant dama ko noonu. loolu nga may wan. <laughs> naaru aw fay a ah, góor ndey bu soog ndey faatu ak joor ak ay satu fay. ëpp na maam maa ngi koy nuyu. maam jaxate ah. sama waa ji nuyu naa ko. jeex na ah dégg na la. waaw loolu moo nekkoon euh, seen euh, émission bu Lougaré Sow ci seen euh, télévision bu Lougaré TV tey nekkoon seen invité ki nga xamante ni moom mooy euh, nday Mboup mu Serigne euh, Fallou vraiment mu nekk euh, émission bu neex tey yaakaar naa yéen ñi nga xamante ni yéenay fans Ndeye Mboup yi kontaan ngeen di ci remercier nag vraiment le PDG Ndiogou Malick Dieng waaye tamit aussi di ci remercier ki nga xamante ni moom mooy directeur u télé bi muy Dame Ndiaye di remercier tamit aussi sama caméraman yi nga xamante ni ñoom laa àndal ku ci mel na Momar Dieng ak ki nga xamante ni moom mooy euh, Alassane Ndoye euh, di remercier tout l' ensemble de de l' équipe de Lougaré TV di leen jox nag euh, dig daje ba beneen yoon ci beneen émission Lougaré Show. Lougaré TV télé bi xew si jamono ñoom ñooy filim baay di jàppale seen jekk ji yomb lool te metti lool mën naa ni yoon wi jekk ji neex lool te jafe lool ba tax ma daan sama yaay jàll maa ngir ku sumb da ngay jooy mama ah yaay booy sa doom a ngi lay sàkku ñaan yaay. lu kaari sawul daal di raw bépp